الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى في قرآن كريم لا يمزه إلى المطهرون يا أيها الناس إنا خلقناكم من سكر وأنثى وجعلناكم شهوبا وقبائل لتعرفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم إن الله عليم خبير mbokk yi ñoo ngi amaan mbégte dikkaat ci seen juróomeelu waxtaan ci waxtaan wi ñu leen sumbal di leen ci gëstul ak mbokk rawatina nag mbokk gi nga xamante ne ci senegal gépp a ko bokk rawatina turux yi te mbokk googi atanaan bi di maam Maaram Mbàkke maam Mara Mbàkke moom yi nag ci la fas yéene ñëw ci jeneen doomam joo xam ne moom lañu fas yéene indi ku ñuy wax maam Sahid Mbàkke mu soxna Awa Buso walla mu soxna Buso moom maam Maaram Mbàkke nga xam ne mooy topp ci kii nga xam ne moom lañu doon waxtaane léegi muy maam Ahmadou Soxna Bousso maam Maaram nag ci juróomeelu maamam la ñuy tàmbalee muy maam Ousmane Mbàkke mi jur Sahid Mbàkke mi jur Mouhamadul Kabir mi jur Mouhamadou Abibullah mi jur Mouhamadul Xayri mi jur maam Abibullah mi jur Mouhamadul Xayri ñoo gën koo xam ci maam maxaram mbàkke dëkkoon mbàkke saa ñànka xam ngeen ne ñëwoon nañ ci lu yaatu ci waxtaanee ki nga xam ne muy maam Ibrahima mu soxna awañang moom maam maaram waaye ñeenteelu waxtaan wi tey dañ koy jëme ci ki nga xam ne moom la ñuy wax maam Sahid mu soxna awa walla maam Sahid mu soxna Buso moom maam Maxram fas yéene ñëw nag ci waxtaan lu yaatu ci moom ci njaboot gu barkeel gi nga xam ne feeñ na ci moom nga xam ne mën nañ ci lu toll ci fukki doom ak juróom yoo xamante ni si boroom borom dogaloon na am na ko ñoo ñooñu lañ leen bëgg limal door a ñëw nag ñoom it ci seenu njaboot bokk na ci ñooñu ku ñu wax maam Seydou Mati ak maam Aminta ak maam Aminta Janaba Mbàkke ak ku ñu wax maam Mbàkke Ramat ak ku ñu wax maam Njaay Kumba Ibra ak ku ñu wax maam Njagamati Mbàkke ak ku ñu wax maam Mati Sayar Mbàkke ak ku ñu wax maam Njaga Mbàkke walla maam Jag Mbàkke ak ku ñuy wax maam Seynabou Paate Mbàkke ak ku ñuy wax maam Ahmadou Jëmb Mbàkke walla maam Ahmadou Bamba Mbàkke ak ku ñuy wax maam Soxna Mbàkke ak ku ñuy wax maam Faati walla ku ñu wax maam Faajama Paate Mbàkke ku ñuy wax maam Aramin Mbàkke ak ku ñuy wax maam Ramata Mbàkke ak ku ñuy wax maam Siise Mbàkke ak ku ñuy wax maam Maram Mbàkke ak ku ñuy wax kiñ tàmbalee woon rek muy maam Seydou Mati maam Seydou Mati doom yi maam Seydou Mbàkke moom maam Soxna Buso mi nga xam ne moom mooy doomi maam Maram moom maam Sahid Mbàkke bokk ak Ahmadou maam Soxna Buso ñu ñëw ci doomi maam Seydou Mati moo jur sëriñ Mbàkke Maane ak ku ñu wax sëriñ Mahmoudan Mbàkke ak ku ñuy wax sëriñ Modou Ajara Mbàkke ak ku ñuy wax sëriñ Ibra Ndumbe Mbàkke ñooñu doomi maam Seydou mati la Saydu Mati doomam ji ñuy wax sëriñ Ibrahima Dumbe Mbàkke moo jur soxna Faati Mbàkke soxna Faati Mbàkke moo jur sëriñ Moodu Jaxate waaye sëriñ Ibrahima Dumbe Mbàkke moo jur sëriñ Cheikh Seynabu na bu Cheikh Seynabu Mbàkke moo jur soxna Buso ak euh, sëriñ Sam Mbàkke ak sëriñ Fatiru Mbàkke ak sëriñ Baara Mbàkke ak sëriñ Ale Mbàkke ak sëriñ Moustapha Mbacke ak ku ñuy wax maam Sayer ñoo ñooñi doomi sëriñ Cheikh Seynabou Mbacke moom sëriñ Ibrahima Ndoumbe Mbacke moom maam Seydou Mbacke moom maam Sayid Mbacke moom maam Maram sëriñ Ibrahima Ndoumbe Mbacke wala soxna walla maam Seydou Mati moo jur ku ñuy wax sëriñ Modou Ajara sëriñ Modou Ajara moo jur soxna Astu Mbacke. ak soxna Faati Mbàkke waaye maam Seydou Mbàkke mii nga xam ne moom la ñuy wax maam Seydou Mati moo jur Sëriñ Mbàkke Maane Mbàkke waaye ba tey moo jur Sëriñ Mahmoudan Mbàkke ñu koy wax Sëriñ Mahmoudan Mati walla Sëriñ Mahmoudan Mbàkke moo jur soxna Faati Mbàkke ak ku ñuy wax Sëriñ Modou Xabaan Mbàkke ak ñuy wax sëriñ Abdou Asta Mbàkke ak ku ñuy wax sëriñ Abdou Rahman Mbàkke ak ku ñuy wax sëriñ Ibra Xuja Mbàkke mi jur sëriñ Seex Mbàkke waaye sëriñ Modou Mbàkke moo jur sëriñ Mamor Mbàkke ak sëriñ Ibra Xuja Mbàkke ak ku ñuy wax sëriñ Moustapha Mbàkke ak ku ñuy wax sëriñ Cheikh Mbacke ku ñu wax sëriñ Bisiru Mbacke ak ku ñuy wax sëriñ Atiix Mbacke ñooñu setu sëriñ Mahmoudan Mbàkke la moom maam Seydou Mbàkke boo dikkee ci jeneen doomam ji ñuy wax maam Aminta Janaba Mbàkke mii moo jur soxna Maram Ndiir soxna Maram Ndiir moo jur sëriñ Abdou Karim waaye boo ñëwee ci jeneen doomam ji ñuy wax maam Mbàkke Ramata moo jur soxna Tandiou Mbacke ak ku ñuy wax Serigne Mor Seck Mbacke waaye soxna gañ Mbacke mii moo jur ku ñuy wax Serigne Mor Soxna Mbacke Serigne Mor Soxna moo jur soxna Xari Bousso ak ki nga xam ne moom la ñuy wax sëñ Dame Bousso ak ku ñuy wax Serigne Baara Bousso ak ku ñuy wax Soxna Bousso. soxna Xadi Buso moom sëriñ moo soxna bu so moo jur soxna seyna Seynabu Njaay ak ku ñuy wax sëriñ Seex Njaay ñooñu sëti sëriñ moo soxna Mbàkke moom soxna Kañ Mbàkke moom maam Mbàkke Ramata maam Mbàkke Ramata ba tey moo jur sëriñ moo Sekk Mbàkke moo Mor Sekk Mbàkke moo jur soxna Ramata Mbàkke mi jur soxna Anta jaaro Si soxna Anta Jaara Si moo jur soxna Jóob Ñaŋ ak soxna Faati Jama Ñaŋ ak soxna Asta Ñaŋ ñooñu sëti soxna Ramata Mbàkke la moom sëriñ Mor Seck Mbàkke moom maam Baara Mat Ramata boo ñëwee ci doomam ji ñuy wax maam Njaay jëmba mbàkke moom moo jur ku ñuy wax soxna ndumba ñang mi jur soxna jaara gi waaye boo ñëwee ci doomam ci ñuy wax maam ñang mbati mbàkke moo jur sëriñ ahmadu mbàkke waaye boo ñëwee ci jeneen doomam ji ñuy wax maam mati sayar mbàkke moo jur maam asta balla mbàkke waaye boo ñëwee ci yeneen doomam ji ñuy wax maam jang Mbàkke moo jur sëriñ Balla ñang waaye boo ñëwee ci jeneen doomam ji ñuy wax maam Seynabu Paate Mbàkke moo jur soxna astu Mbàkke soxna astu Mbàkke moo jur soxna awa saw saw jatara soxna awa saw jatara moo jur soxna màggat Buso ak ku ñuy wax sëriñ Basiiru Sànq waaye boo dellu siwaatee ci maam Seynabu moom maam Sayid Mbàkke soxna awa moom moom maam Sayid soxna Buso moom maam Maaram na Seynabu mii ba tey maam Seynabu Paate Mbàkke moo jur soxna Astu Mbàkke mi ñu waxoon léegi mu jur sëriñ Mor Asta Jatara sëriñ Mor Asta Jatara moo jur sëriñ Mbay Jatara ak ku ñuy wax sëriñ Bàlla Jatara ba tey doomam ji ñuy wax maam ahmadu jëmb mbàkke moo jur ku ñuy wax sëriñ mbàkke soxna mbàkke ak ku ñuy wax sëriñ say ruxuja mbàkke sëriñ say ruxuja mbàkke nag moo jur soxna asan mbàkke mi jur sëriñ baara buso waaye sëriñ say ruxuja mbàkke moo jur soxna asta mbàkke mi jur sëriñ Daam Mbàkke ak sëriñ Baara Mbàkke ak sëriñ Moodu Mbàkke ak sëriñ Abdu Mbàkke Ndar waaye maam Ahmadou Jëmbo Mbàkke moo jur sëriñ Mbàkke soxna Mbàkke mi jur sëriñ Gede Mbàkke waaye jeneen doomi maam Sayid soxna bu sama maam Maaram ñu koy wax maam soxna Mbàkke moo jur sëriñ Mor soxna Mbàkke sëriñ Mor Soxna Mbàkke moo jur sëriñ Balla yónni waaye ba tey boo ñëwaatee ci maam Sayid Mbàkke soxna moom maam Maaram moo jur maam Faajama Paate Mbàkke maam Faajama moom yi Mbàkke moo jur Ahmadu Faajama Ñaŋ ak ku ñu wax soxna Faajama Ñaŋ soxna Faajama Ñaŋ moo jur sëriñ Moodu Sekk Taddi taqe sëriñ Modou Seck taqe moo jur sëriñ sekk ak maam Seynabu Seck ak xalaaji Ireen Seck ak maam Saliou Seck waaye kañuy wax sëriñ Ahmadou Fa Jamañang moo jur sëriñ Joogu Ñang ak soxna Fa Jamañang ak sëriñ Modou Xari Ñang ak sëriñ Dëkk Ñang ak maam Anta Ñang ak sëriñ Ñang mu ndaw ak kañee wax Serigne Mor Anta Ñang ñooñu sët lañ ci ki nga xam ne mu la wax maam Fajama Paate Ñang boo ñëwee ci jeneen doomi maam Sahid yi ku ñu wax maam Aramin amoon na ñetti doom moo jur Serigne Modou Fari Mbàkke ak sëriñ Modou Ajara Mbàkke ak ku ñuy wax sëriñ Ibra Soxna Mbàkke sëriñ Ibra Soxna Mbàkke mii moo jur sëriñ Ibra mbakke waaye maam Aramin moo tey moo jur sëriñ Modou Ajara Mbàkke mi jur sëriñ Modou Ajara ak ki nga xam ne moom la wax sëriñ Moustapha Mbàkke waaye ba tey maam Aramine moo jur sëriñ Modou Fari Mbàkke mi jur sëriñ Mefta Mbàkke ak ku ñuy wax sëriñ Hamidou Mbàkke ak ku ñuy wax sëriñ Ibra Mbàkke waaye ak sëriñ Baara Mbàkke ñooñi doomi sëriñ Modou Fari Mbàkke moom maam Aramine Mbàkke moom maam Sayid moom su maam Maaram boo ñëwee ci maam Ramata Mbàkke moom sañ Sayid moom maam Maaram moo jur sëriñ Mbàkke Ramata Mbàkke boo ñëwaatee ci ki nga xam ne moom la wax sëriñ maam Siise Mbàkke moom maam Sayid Mbàkke moo jur soxna Faama Siise soxna Faama Siise moo jur sëriñ Ibrahima Si mi jur sëriñ Daaro euh, sëriñ Si Daaro waaye maam Siise Mbàkke ba tey moo jur sëriñ ñaan Siise mi jur sëriñ Aliou Cissé boo dikkee ci dikkaatee ci maam Maram Mbàkke moom maam Sayid moom maam Maram soxna Awa waaye ba kon loolu mooy li nga xam ne mooy njabootuk sëriñ Sayid Mbàkke mu maam Maharam Mbàkke kon mbokk yi dañuy yëkkati foofu ba julli timis ba noppi dikk ci ki nga xam ne mooy tax ñu def waxtaan wi te moo taxit càllala gi barkeel muy maam Balla xay sa mbatti maam maam Mahram kon yëkkati war xalam gi rek dikkaat nag ci juróom-benneelu waxtaan woowu Bye-bye.